li sadinatan bi kullil li sadinatan bi min daari minan yaatal minna xaalis bi mu doon wax euh, dépense mensuelle bi weer wi 17 millions et poussière yoo xam ne ceeb bokk ci dugub bokk ci saabu bokk ci xaalis boobu argent liquide la ndax ñu xam ne li ma tudd ci ci daara ja ña fa nekk ñi ñu fa war a fay muy muy léttkat yi balekat yi fóotkat yi ndey daara yi jàngalekat yi ñoom ñépp boo leen dajalee ñi ci nguur jël di leen fay ëpp ñu fukki nit ñeneen ñi des ñépp fondation Maam Jaara moo leen di fay muy liggéeyu euh, daay liggéey bi daayira yi di dajaleeg yooyu mooy fay ñooñu mooy fay ñii ma wax ba pare contribution maanaam euh, parents d'élèves yi amuñu lu ñuy fay weer bu sa doom di dugg doo ko fayal su fa nekkee amul looy fay weer wu dee sa doom daal danga koy indi la ca war lépp moom ñu defal la ko ca delloo sil la ko bari na ñoo xam ne seen doom dañ faa ñëw jàng alxuraan ba mokkal ñibbi waaye amul benn war-war boo xam ne teg nañ ko way jur wi ci ne da nga ko war a def ndax xale bi bu woppee sax daara maam jaaraa koy faj même buñ ko waree transféré jëlee ko hôpital jëlee ko poste de santé yóbbu ko kaw Kaolack daaray Maam Jaara moo koy yóbbu bilan bu mu war a def wala analyse yu mu war a def daara ji moo koy fay fu mu mën a jëm loolu laa ci doon dolli beneen bi mooy soxna jaara mi ya alxuraan di wax wa shahida shahidun min ahliha ginnaaw moom fa la nekkoon dafa jàng mu sànni ci ay kàddu ndax li may wax da ko dund ginnaaw da ko dund ne ci seen biir nag ñu jox ko kàddu gi ci kàddu yu néew mu joxe seere ya nga xam ne teg na ci bëtam bismillaahi rahmaani rahiim assalaamu aleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuh maa ngi nuyu mbokk jullit yi cinq le cinq mai jóge fa 2009 di wax ni lii mu wax lépp dund naa ko ndax bu njëkk dama doon wax ni daaree Porokhane de la fa nekk boo koy wax boo koy wax sax nit ñi duñ ko gëm tant nit dem foofu dundul ba gis lañ fi dund ñun boo toogee dañ naa lii mënta nekk ndax lu loolu ñeenti téeméeri mam jaara ak juróom nekk ci béréb seen dara manqué woon ndax 2005 bañ fay doog a dem yàlla daa dogal ni mi ngi dombeeg bisu màggalu Poroxaan bisu alxames ñu dem fa ay ñun ñi ñu ngi fi dem ay 10 heures la ñu fa yóbbu ci suba yi àjjuma ji ci la yeneen soxna jaare yu bari gën a ñëw biñ ñëwee yére yi ñu indee bagages yi ñu suñuy waajur indi dañoo dëpp yëpp ni lépp ngi fi wutal ñu ñaari tën yu ñuul ñaari tën yu weex benn tën bu rose benn bu bula ak bu dee wàllu dàll ñun ñëpp ñoo ko daan nuróole duñ ko manqué benn yoon bu dee wàllu saabu bu ñuy sangoo duñ ko manqué benn yoon ku ci ne dañ lay jox da ngay dugal sa valise ba valise bi day doo daan foo ko def bu dee wàllu jumtukaay mi leen diwukaay yaram pour yaram bi bañ a weex dañu ko daa wutal ba mat bu dee diwu bopp qualité daawuñ ko manqué bu dee jaar daawuñ ko manqué daawuñ manqué dara amoon nañ ñuy fóodal alxames euh, safula altine ak àjjuma amoon nañ ñu nuy lët amoon nañ ñu nuy toggal amoon nañ ay ndeyu daara yu nekk ci néeg bi ak ñuy bale ak ñuy raxas dossier ak ñuy def liggéey bépp ñun jàng dong lañ daa def jàng lekk tëdd nelaw daawuñ def leneen lañ fa daa lekk nag amul kër bàyyi soxna jaara boo doon dem di ko fekk ñu ko fay doog amul lañ daa lekk ca daara ja donc goo yéem boo ñëwee daal Porokhane fekk ko fa daanal añ comme ni ko sëñ Ablaye Diop ba waxee léegi daanal añ ba desal ba yóbbu yeneen daara yi ne suñ ginnaaw xam ni suñ desu añ moom lañ ñaañee suñ desu reer moom lañuy reere ndax xoolal toll ñeenti téeméeri maam jaara ak fukk nga bëgg leen a toggal ay ginaar nga bëgg leen a toggal vermicelle nga bëgg leen a toggal salade nga bëgg leen a toggal ceebu jën nga bëgg leen a toggal maafim yàpp nga bëgg leen a toggal damadab yàpp nga bëgg leen a toggal euh, yaasal lekk goo yéem goo goo xam ne danga naan lii bu ma demal kër bu ma demal sama kër bàyyi bu dul tabaski duñ nga fa togg dañ koy togg daara ji àjjuma bu jot ak nag yi ñuy rey lekk yañ fay lekk daal man na amul suñu kër bàyyi loolu moom man mii mën naa koo seede te du dara luñ fi manqué du dara loo xam ne amaana boo nekkoon sa kër bàyyi doo ko am boo nekkee dans les programmes moo moom nga fay am boo feebaree ñu yóbbu la ci daal bi faj la bu dee pat doo ko manqué bu dee boros doo ko manqué néeg yi ñuy néeg yi ñu tëkkoon néeg bu nekk day am juróom fukki juróom fukki maam jaar yàlla dogal nag mam jaar e bu ne booy tëdd e da ngay tegle sa mat la tegle sa ñetti man la wala sa ñeenti mat la lal sa ñaari darab sàngoo sa mbàjj ba yàlla dogal ñu am ay lal la ne est-ce sa lal man ngaa sa ñetti darab wala ñeent sàngoo sa mbàjj doo fóot doo def dara loolu boo nekkee sa kër bàyyi di jàng alxuraan loolu lépp yaa koy defal sa bopp waaye ñun daara jël lépp dañu defal lépp bu dee ndekki lii bu jëndee mburu indi xoolal doon ñeenti téeméeri mag ñaar ak juróom fukk mburu bu nekk ci digg bi lañ koy nag te doo lekk mburu moomu dara faaw mu am beurre wala mu am sookola doo naan kafe goomu dara la toggal kafe dute ba def ca meew saf boo añee di nga añ des fa boo réeree di nga réer ba réer ba des fa kër bàyyi maam jaara boo dem amaana mbaxal la ñu togg wala cere loolu boo ñëwee daara Porokhane rarement nga fay gis ñu toggal la cere te jërey baase lay doon bu am yàpp kon dund ngeen fay dund dunduñu ko suñu kër bàyyi kon bu yàlla dogalee bañ dem ba wax ne par naa sama yaara yi nee naa leen waxuma ñi ci bokkul le waaye ñun suñu waajur yi rek war ba ñoom ñu doonte sëñ Saa Basiru mënuñu koo fay de xanaa ñu jéem ko ñaanal yàlla yokk leeram ndax bi ba mu muccee ñëw daara ja boobaay tut tànk lan xamuñu dara ndax soxna soxna Ndiaye di ngeen ma gëj a gis waaye maa ci seen biir jàng jàngal xool dafa poor lool mais sëñ bi daa bëgg ñuy jàng te bu ñu leen dóor du ñu fàtte soxna di Ndiaye Badaloo di ko ñaanal yàlla yokku leeram ndax moom. waaw jërëjëf jërëjëf baax na mën ngaa dem toog mën ngaa dem amoon naa kumpa lool waaye leer na ma naa ñu na kon nag murid yi fàttaliwaat leen seen i laxasaay ku bëggub liggéey liggéey ngi fii te sëñ bi kat ku bëggub liggéey mu jox la bu liggéey kat te jox la loo ko liggéeyee kon góorgóorlu leen bu baax sant nañ bu baax soxna yu tedd yi yaram daw na wax dëgg yàlla suñ Moustapha yàlla rek am payam sëriñ Tuubaa suñ Basiir moom doon liggéeyal waaye ñi fi bàyyi gannaawam it wax dëgg yàlla tàggat na leen ba muy ay sëñ Basiir yu bari mën naa ne ku xool ci sëñ Muntaxa rek xam ne ay rakkam yëpp noonu lañ mel kenn yaafus ci ñun ñoo yaafus ñun ñoo war a dolli góorlu ñoo war a xool ci ñoom ñoo war a roy ci ñoom man de lii ba ma ko siñeb laa di wax du tey booba xale laa maa ngi ci biir këram waaye nag loolu lay dund saa su ne man suñ Moustapha moo ko bëggal sama bopp rek bu ma fekk jëwriñ la may wax te moom mooy jëwriñ yoon wi lii mu am nii da koo mérité da koo liggéey fa am làq ngërëmal ñëpp ku suñ Murtala wóolu woon la ku suñ Saaliw wóolu woon la ku sëñ Tuubaa wóolu la fi mu teg tànkam nag sëñ Abdu Lahat daf ne woon sos moo jafe mooy li sëñ Tuubaa def waaye roy yomb na koo bëgg di moom mën ngay moom weesuwul fu mu teg tànkam bu jàllee nga teg fa sa tànk mbakk yéen nag fa seen wajur bu baax a tegoon tànkam rek ci tànkub sëñ Tuubaa ba ngeen ko teg yàlla yàgg lool mbakk suñu xol sedd na yàlla nga fi yàgg ñëw murit fedd leen seen laxasaay bu ngeen jógee fii ba déwén kenn ku nekk na bàyyi xel liggéeyu maam jaare bii ku bëgg àjjana biir ak biti kat da nga liggéeyal maam jaara kon ñu ngi sant ñëpp fooguma ñu ngi lay sant di sant sëñ Moustapha di sant waa daayira yëpp lépp lu ma ci wax waaye rek mu yaakaar ne dafa ma am lu ma naqar fekk dama ko bëgg dimbali ndax damaa gis njariñ li lii de ma xam nii maag yéen a ko xamandoo xawma ko woon ci daara ji waaye damaa xam pas-pasu waa kër sëñ Basiru seen dong sax wuute na ak dong yi góorgóorlu leen waaye kenn ku nekk bu la jiitoo rek nga teg sa tànk ci gannaawam roy sëñ bi sant naa lool maa ngi feddali sama ko yéen lool lool lool lool teer bi ngeen ma jox sax mérité ma ko sëñ blaat rek ngeen ngeen xool ci ñun sëñ Moustapha day ngërëm la ko sëñ blaat gërëm leer na ñëpp waaye sëñ Tuubaa ko a gërëm nag xam naa ne dafa jaar ci làmmiñam képp waaye sëñ Tuubaa ko gërëm ndax lii de lu nëbbu woon la waaye Mbàkke feeñ na leer na ñi te leer na àdduna bépp it fu bi mën a nekk daal